fii moom tànn fii amu fi ndax ñun mënuñoo dundal suñu bopp réew mu toll nii am suuf am ndox mënuñoo dundal suñu bopp dañuy wax réew mu mën a dundal boppam te am yooyu yëpp réewu yaa fus la te war a dundal suñu bopp waaye ku bëgg loo dundee di ko jéggaani te bëggoo ko jéggaani waaye looy def da ngay béy kan mooy béy ndax màgget ñi lañ bëgg ñu dem béyi yéen xale yi yéenay béyi ñi ëpp alal ci àdduna bi béy moo leen ko jox ay tool la preuve seen morom yaa ngi diggu ci àll bi di am plus de dix million par semaine ci kaan yi rek ci nangam ci nangam nangam te kutewu leen dara mbay léegi nga xam ni daanaka dangay ngay toog sa kër sax

kenn waxul ñu ngay carte fu nekk nag ci àdduna bi carte nag yóbbul réew fenn yóbbuwul nit fenn yàlla lu mu xaraamal xaraam na te dootu mas a dagan ci àdduna réew moo xam 75 pour cent de la population 0 à 35 ans l'âge médian c'est de 0 à 19 ans plus de 60 plus de 10 millions de personnes fu ñu nekk ci biir kër yi leen ñom lañuy jangal ñom lañuy dundal manaluñu seen bop dara ñooñu c'est une bombe dans quelques années ba amee daal am loxo am lu vers des dans l'enseignement des métiers

Je je dessus d'ici le malaise hollandais indi il faisait de l'agriculture hors sol de l'élevage hors sol mais stabilisation intensification de l'élevage de l'agriculture Nous produire lu nek, Nous bi yëpp di di pétrole gaz daal di ne ñun li ñuy dépensé ci élevage bi dafa bari xam nga lu ñuy def dañu koy bàyyi dem di jëndi te dañu am bénéfice waaye ñu toog tuuti le cours du pétrole a chuté day jógee 180 dollars ñëw 12 dollars xaalis bi nga doon jënd sax amatoo ko foofu te li nga doon li nga doon dunde yow bàyyi nga ko kooku c'est un véritable malaise mooy li ñuy wax the Dutch disease le malaise hollandais

waye boo nee souveraineté alimentaire war nga wax tamit souveraineté vestimentaire ñun ñep nous sommes très bien habillés waaw waaw mais dara couture bi rek fi joggé rek mais piis yep yëpp bitim rew la joggé ana souveraineté kon té solo amul doomu adama bu am nit dina dina ñàkk lekk sax kenn du ko xam mais solo yére ñëpp xam.

mais l'État doit prendre ça en charge voilà 1000 emplois qui dorment ici xale yi da ngeen bëgg ñu liggéey Thiès a ngi nii junni emploi ngi fi